عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم سيدنا محمد وعلى آله حق قدره والإقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضر إلى لهذا المحضر والتعطيف لنظرة تأتي من أبي بكر مولانا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jërëjëf directeur de cérémonie Cheikh Ibrahim bi teew maa ngi nuyu mbooloo bi teew yëpp di jox suñu nuyoo suñu liggéey suñu taw di xalifa suñu maam Alxaaji Ahmed Bennett muy Cheikh Mouhamadou Bachir muy Cheikh El Hadj Mouhamed Diarab dinañu ay rakkam ci ñu toog yëpp fekkoog moom ci kër Hadj Mouhamed Diarab waaye ci kër Cheikh Ibrahim Cheikh Mamadou Qourachi ci kër Cheikh Sëriñ Mbaye Niass gis nañ fi suñu doon Cheikh Sidi Ali kër Maam Mahmoud gis nañ ci xalifaam Cheikh Mahmoud gis nañ fi doon bàyyi jigéen suñu waajur yi ci ah, suñu yaay Maam Roqi ak suñu yaay Sidi Aïcha jiite ko ak seen rakk yu tedd gis fi suñu mag yu baax ci góor ak ci jigéen gis fi suñu sang Cheikh Baye ak Cheikh Moustapha ñu njaay seen arabi nga xam ne seen taxawaay ci seen maam gi tedd ji ñëpp sedd nañ ko yàlla yàlla sotti barkeem ci loolu dañuy tamit suñu mag Seyda Roqi Aja Roqi ñaan ñu nga xam ne suñu mag la di doom suñu yaay nga xam ne bokk na ci jigéen ñi ñu yar ñuy Seyda Zeynab bint El Hadj Mouhamed Zeynab Yaas nga xam ne doomu El Hadj Mouhamed Zeynab ba ñu leen ziyaare ñoom yëpp waxtaane alxaaj Mouhamed Zeyna bu ci kër yoonam nag dafay nekk lu amoo am solo te kër yooro li bàyyi waxoon bi alxaaj Abdoulaye di aji Makka mu alxaaj Abdoulaye taawam ne lépp lu ñu am ci mbaax rek mbaax la bu ñu jëlee ci alxaaj Abdoulaye waaye booy jàmbat booy càmbar taarixi kër yooro da ngay gis diggante ak maam alxaaj Abdoulaye ci saasi ndax dama gis benn document 1917 Chérif Ahmad Ibn Sayex nga xam ne yaayam Ahmad Abdoulaye moo ko jur muy kàngam bu rëy ci tariqa bi 1917 dafa ñëw Sénégal lijaasa Maam Alaaji bi nga xam ne moom la ko Mouhamad Ahmad Abdoulaye bindal sax moom moo ko indiwaale 1917 mu bind téere benn rihla tuddee ko Chukrul Maanih fii rihlati Ibn Sayex ma fay wax ne bi ñëwee. 1917 dafa fekk maam alaaji dem Taïba Niangène di jaale ji ak jullee ka miraas taalibeem bu muqaddam ba Ahmad Boucar mu toog xaar ko Kaolack bi maam alaaji ñëwee ànd ak moom Koosi mu ne ma nga fekk maam alaaji ma ngay roof ci biir xoli nit ñi lislaam ak tariqa tijaan bi maam alaaji paree foofu ñëw moom lew boole ko taalibeem toomaam bu ñu wax alhaaji Diagne ne na ko yóbbu Taïba Niangène waaye bu paree na ko yóbbu daaw ci maam Assane Ndiaye nga xam ne kon gannaaw bu mu jógee Kayoor kër Tafa la ci def kon kër Kayoor yàgg la waaye Assane la si ñu xaaj Assane ni ko Baye waxee boo demee ci téere boobu da nga ko fekk maxtuut la boo xam ne incha allah ñu ngi ko bëgg a mool dans le cadre de l'histoire générale de la Fayda boo mi ne Mbindam Baye danga danga bëri loo ci gis lettre yu jëm ci Kayoor ci dëkk Hadj Mouhamadou Zeynabou taalibe yu baax yooyu dañ ci fekk. suñu maam Birane Diaw lettre gi jëkk njëkk a bis alaaj Abdoulaye Khalifa bindal ko bay bàyyi dicté ko ko boobu xam naa ne ñaar fukki at maam Birane Diaw la jëmoon naka noonu gis naa fu bàyyi bind ak benn big bu verte ah, toolam yi ci Saalum ak kàngam yi bi nga xam ne ñoo koy doxal dañ fa fekk mam Birane jaw naka noonu archive yi tubaab sax boo demee ci archive yi aju ci coopérative yi bàyyi sosoon da fa da fekk turam moom ak magam ja waaye ak suñu maam Malle Diouf mi nga xam ne ci biir waxtaan wi dañ gis ay bayti yoo xaaj Mouhamed Vénébu def moom xaw ma ndax jot nañ ko gisam déet kon kër yoroo dëkk bu tedd la ñaani ko xaaj Mouhamed Vénébu di ñaanal ci laataram yi ma gis yëpp mu bind bàyyi buy tëj rek da gis mu ne kër yoroo laa ko bindee xarasa xarasaha Allah yàlla ko yàlla protégé alxaaj Mouhamed Vénébu nag ci ñi yàlla dëgëralee bàyyi la ndax képp ku mas a am mission bu universelle da ngay soxla ñu taxaw yàlla daf lay boole ñoo xam ne ñooy taxaw dëgëral la yonent yàlla Moussa moom moo ko ñaan ñu lay ba nag ñuy mbokk sax cër bi dafay far gën a yokk ndax dafay dal sa xel yonent yàlla Moussa ñaan na yàlla ne ko gannaaw bu ko yàlla yebale ci Firawna ne ko dafa beew waj'al lii waziran min ahli Haaruna axii ushdud bihi azri ebalal sama mu nekk sama jaraaf nga dëgëralee ma yàlla ba demee ci suratul qasas yàlla ne ko sa shuddu adudaka bi axiika dinaa la dëgëral ci sa mbokk alaaj Mouhamed Zeynabou taxawaay boobu la taxawoon ci booru Mawlaaya Cheikh Ibrahim radiallahu taala taala anhu mi ngi génne àdduna 1891 magee bàyyi juróom-ñeenti at kooku mag na ko lool mi ngi génn àdduna 14 euh, septembre 1947 bàyyi tënk ko ne lillahi asraqa in turid taarixahu wal umru yowmun yasdari bil ajsali boo bëggee taarixal dundam boo calculé lillahi asraqa rek daf lay jox mille trois cent soixante six boobu waaye mu ne benn fan rek la dund yowmun benn fan la dund waaye seetal ni dund bi amee njëriñ dund bi lim ci dund ëpp na siècle lim ci def ci xam-xam ak njub ak ñi fi jubal loolu yàlla rek a xam ni mu toll euh, génn àdduna am ci bési dimanche vingt neuf euh, wala ci mille trois cent soixante six ñu teg ci ñaari weer bàyyi dem tukkee moom ci Conakry ni jox na ndigal ngir fuuglu borom xel yu sell yi waaye boo duggee ci biir tukki bi boo dawee weer rek gis ne alaaj mu abdu génn àdduna moo tax bàyyi di fàttali ku génn alaaj xaaj Muhammad Zeynab bu génn àdduna am ma abdu di wax ne qad fuqidat aami buduurun indaha sama at mi dafa mel dañ koo amputé dañ cee dagg ay weer ngir ponkal yi nga xam ne ñàkk naa ko muy tawatal yàlla sax ne ko yàlla bul bàyyi Medina mu wéet ndax ñi may ñàkk kat lii bu dakkut laa tëddal xaa xaawiya bul bàyyi Medina mu wéet ndax lii kat bu dakkut Medina gën a wéet ndax ku mel ne laaj xam mu dëgg dëgg doy na perte waaye nga nettali ci xam ne am na ko ne ko ah man de alhaj moo zérébu dafa fort ci yow ba ñemee mu la koo jaale ah bàyyi na ko déet alhaj moo zérébu maag moom ñaar ñu nekkoon ci kaso rek lañ moom mu génn bàyyi ma ci mu ne ko ah kon dee noonu la bàyyi ko dee dee yàlla ak Mawzir bu la la loolu moom am nañ ko sax ci kaddu Mawlana Cheikh Ibrahim mu doon jàmbaar joo xam ne ci ñi dëgëral bàyyi la bokk am nañ kaset boo xam ne man nga ko dëggal sa bopp bàyyi di wax ne alaaj Mawzir bu moom daan wax ne yow baax ci yow taxut a baax de baax ci yow taxut a baax de bàyyi ngi wax a war ne yow da ngay xool nit ñi taari yàlla bi ba boo lu ñu seen mbir am na ñoo xam ne jàpp nga ne dañoo baax te fekk ñu doy waar ne nga gis wala kuy taxawu nit moo koy moo ko moo koy féetee ci boor boobu bàyyi jox ko cër bu rëy may ko droit ci boppam may ko droit ci ay taalibe boo miinee ay lettre am da ngay gis ne toujours mi ngi jox baay ay conseil ndax loolu ci yeneen fi lañ ko donnee waa amruhum shuuraa baynahum dañ daan diisoo di sottante xalaat ndegem yoon ci moo daan jël xalaat xalaat yi on mag ñi ko waroon rawatina ah, ñi ko doon ku mel ni Mawlaya Cheikh Ibrahima radiyallaahu taala anhu au passage maa ngi nuyu Mawlana Khalifa Cheikh Mouhamadul Mahi di yónnee nuyoo Imaamul Akbar Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé mi nga xam ne ah, yéen ñu yool ci liggéeyal góor gu mel ni Hadj Mouhamadou Zeynabou suñu maam moo tax mu proposé ñu bokk ci ñuy waxtaan yal na yàlla dolli ko te saxal ko fi waaye loolu daf ñu yóbbu ci bàyyi cër gi ñu jox Hadj Mouhamadou Zeynabou ci njabootam gis nañ ko ci lettre yu bëri rawatina boo xam ne ni ñu ko bind 8 ah, jumaada saniya 1300 59 euh, mu tolloog 1940 bi ñu yaree doomam taawam suñu yaay suñu sëriñ Seyda Fatima ba mel ni ko neex mu ne daf ko bëgg a dénkaane dénk ko borom kër mu ne fa tazwiju na ci Fatima az-Zahra bi yadi haulaay raisihim wa kabirihim zahiran wa batinan al allamati alhaaj Mouhamed Zeyn te boobu kàngam yëpp la tudd ci benn commission ne commission bi nag ki ko jiite mooy ki ci mag ci zahir ak ci batin mu Cheikh alhaaji Mouhamed Zeyn nga gis ne kon cër bi mu jox Cheikh Ibrahim ci njabootam cër bu yaatu la woon bu mel noonu la ko joxoon ci biir taalibe bi lettre bu ko bind te lettre yëpp a ngi fii lu ci bëri sax bi ñu sante jotaay bi ci lañ ko doog a gis ah ustaz waxoon ne dara du sànku loolu gëm naa ko ne dara du sànku waaye ñekk loolu ci fi mu yaroo kuy bàyyam alxaaj Abdoulaye Niass dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy faar ci famille boobu moom alaaji jàngal ko def ci moom alquran def ci moom xam def ko muy ndax xam-xam bi ak arab yu wér yi mbind mu nga xam ne amul dara lu ci tooy waaye mbind mu rafet ma dafa nekkoon di calligraphie dafa dajee qualité yëpp ci secrétariat lettre bii ma tiim moom la maam alaaji mujj bind ci àdduna daf koo bind matul weer mu génn àdduna 17 mai 1922 euh, ci la ko bind 14 juin 1922 mu génn àdduna balaaji moo zébi bu ma ko bind moom la wax ne ko bindal ma daf koy wax lim soxlaa bind bind ko mi ngi jamoon ci awlaat daymaan yi ki nga xam ne ñoom la maam laa ji daan sottiloo téere yi muy jàngale ndax ñu rafetee loxo kooku sotti sotti na téere yu bëri yónnee ko mu ne ko li nga sotti woon xaaral fay ko nga dogg a yónni yeneen ah, nuyul ma mbokk yi nekk foofu nuyul ma Bekaay Seck doomi bu en Moxdaat nga xam ne moo doon traducteur euh, euh, colonialiste français yi lettre bi mooy wane ne kon moom secrétaire maam alaaji yàgg na ci waaye njëkk loolu ba muy bindal maam alaaji marsiya bi Ahmad Bukaar suñu maam Ahmad Bukaar génnee àdduna boobu loolu 1917 la xam nga li mu am ci at boobu at yu tuuti la boobu Cheikh Ibrahim fukki at ak juróom-ñaar la am maam alaaji tànn ko nee na ko wayal muqaddamam bi taalibeem bi xalifaam bi mu def ci marché bu rafet mool naa ko ci benn téere moo moo gën a mag moo gën a yàgg ci document yi ma dajale ci ci diggante boobu mu 1917 alhaj moo zene bu moo ko bind ci njëlbeen sax dama foogoon ne maam xalifa la ndax ñoom ñoom Mouhamad lañ tudd waaye mu ngi jigi daaw lañ gis loxo bind loxo alhaj moo zene bu bi fi naan ne moo bi xasida boobu naka noonu bi ñuy jox lijaasa alxaaji ma abdu alxaaji ma abdu dafa indi benn bu mu ko way maam alaaji maam alaaji jox ko lijaasa ba pare ne xaaji ma xool bu ko tontu ci même baax mu way ko way woo xam ne boo ko gisee da ngay xam ne kii am na borom borom basira la ndax li muy junj yëpp ci way yi man ci fayda bi laa ko gis mi ngi naan kaya ajaztuka yaa tilmiisu ra'sal ijaazatan saxiixata isnaadin بهذه الطريقة وإن دمت في هذا بدون تلفت سترقى لمجد عاليا في الحقيقة ودمت على نهج والدك الذي تنهج من نهج لنا باستقامة na nga sax ci sa yoonu baay bi nga xam ne suñu yoon la sax ba am njub gii mu am boo saxee ci lii te geesuwoo da nga àgg ci dayoo bu gën a kawe ci xaqiqa ma ne dayoo bi gën a kawe ci xaqiqa nag duñ ko amee ci bi faydi bi feeñee lijaasa yu bëri yu baamalaaj yi bind bind loxol xaaj mal benn bokk na ci ijaasa suñu maam Alaaji Saalum Diané 1919 maam Alaaji moo la wax ñu bindal ko lijaasa mu tolloo 1338 gis naa ñaari lettre benn bi ñu ngi jëm ci benn waaye boo xam ne jarul ñu tudd turam jàppoon tariqa ci maam Alaaji mu ngi jàpp beneen tariqa boole ne dafa boole ñaari wird yi ci ñuy boole ñaari wird yi la bokk maam Alaaji xaaj ma gën a bu la xam bind lettre bi ñu ngi amee bind loxo ma ne ko moom waa ji fekk na ma ñeseen ma jàngal ko mu neetul murid jox ko charte tariqa bi jox ko tariqa dégg naa ne jël na ko boole ko beneen bindu waaye nag na préparé ah, mbugalam yàlla ak yonent bi ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ndax or na yàlla ak bi ci fecc kóllëre Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bokk na ci lettre ouverte bi mam ma tiim moom alaaji bind ko mu jëm ci taalibe yëpp digal dig leen ci wax leen ci li yàlla dig li Cheikh Tidiane yi wax ne moom la yonent bi dig ñi jàpp wird wi nii ah mu lay taayeele ko waxi borom mun ya ak ah, Mouhamad Nadifi tëjee ko benn phrase di wax ne man Alaaji Abdoulaye day bu ma leen doon wax li nekk ci ngeen ci tariqa tijaan ba sama dund ba fa sama ko du ma a jeexal kon na ngeen jàpp ci tariqa tijaan nga gis ne kon euh, lim njëkk a dénkaane def ci dundam yëpp moom la mujjee dénkaane ñi nga gis ne Cheikh moom a dénkaane fan tum si ko fan tum si ko tariqata tijaan yi ba ci lijaasaam ci wasiyaam tamit na ngeen jàpp ci tariqa tijaan la mujjee dénkaane boo demee ci kóolare alxaaji Mouhamed Zeynabu ak ñi sant Cissé suñ kër maam Alassane da ngay gis ne tamit xasanatun min xasanati la xaj abdullahi ndax maa ngi ci fiirumaat ñeenti leetar yoo xam ne yëpp maam alaaji moo ko bind te cheikh alhaaj mahamad zeynabu la ko bind loolu mu ngi bind ci kaw ne leetar yi nañ ko jox tafsir xasan tafsir xasan àndala absa fi xariyati joson mu suñ maam alassane sise benn leetar ñu ngi ko ci wax ne ko sa doom mouhamad indil na ma dugub bi ñu ma indil addiye yàlla boo ko ñàkk mukk sa doom chafiq ñëw na di ma set sama tawet nang ma nuyul sa muqaddamul baraka maam Samba Thiané muy waajuru mu jur yaay Sidi Ali Cissé na nga ma nuyul ah, mortu ma Ndakaar ak ku ñuy wax Amadou Ba ñoom ñëpp ci muqaddam maam xaaj Abdoulaye foofu ci josoon lettre yooyu moo zénébu moo ko bind booy seet digganteem ak waa Fass Fass bu nga xam ne maam alaaji dafa bàyyi ay empreintam ba sukkee di naan ko mooy xalifa Cheikh Tidiane ci réewu nit ñu bu diri fa bàyyi fa empreinte ci visitam boobu bu bu am solo boobu noonu nga xam ne ñoom axañ xool Zeynabu ñoo bokk na ci délégation bi ko buggee ca Dakar boobu ñu jël batoon di dem ña fa nekkoon amee zaawiya ba ñu mel ni Cheikh Abdou Karim Binnis yu mel ni euh, si Tayib Soufiane yi nga xam ne Mawlaaji Abdou Karim Binnis Mawlaaji waroon na ko ay laaj joo xam ne fan yii sax laa gis tontu yi nekkee tontu woon na ko seen dialogue bu amoon ci tariqa Tijaan xaaj moom Zeynabu xam na leen fasante ak ñoom ñoo kóllëre ñu bëgg ko lool ndax xam-xam bi yàlla def ci moom dèjà Sukayrij boo demee ci jinaayatul muntasibil aani page trois cent soixante cinq ba page trois cent soixante neuf da nga dégg muy wax ñiy défendre tariqa tijaan fii ci Sénégal ñu mu tàmbalee ci maam alaaji ne mooy abul fadli shaybatul hamdi abu muhammadin al mashhudu lahu bil karamati wa tasarrufi ah, fil insi wal jindi wal xayawaan mais maam alaaji mu kuñaal ko kuñ yooyu rafet ne euh, mooy ki nga xam ne moom la yàlla jox ngeneel mooy ki mooy borom bi jaaw sant yàlla bi mooy ki nga xam ne yàlla may na ko teraanga ak tasaruf ci kaw nit ñi ak diine yi ak rab mu ne mooy mooy abu muhammadin mooy jur muhammadul xalifa moo jur cheikh mi nga xam ne mu sadañ di gëlëm ci pays maarifa yi waaye moo jur mbokkam mi nga xam ne ñoo bokk mbëggeel ak cofeel ci man mu cheikh alxaaj muhammad zen boo demee ci rasaayil allaama sidi ahmad sukeri deuxième volume bi si di gënuun indi na fa ay lettre yoo ne xaaj muhammad zen moo ko daan indi waaye lettre bii ma tiim xaw ma ndax mos naa génn am déet waaye fan yii lañ ko gis Sidi ma Maam Alaaji Moussa bu bind ko Zawiya Fass bi Abdul Karim bin Niis ak si Tayib Soufiane yi di leen laaj ay laaj waaye boo gisee xalimaam bi rek da ngay xam ne yàlla li ko may dafa rëy docteur Ousmane Dia mi ngi wax ne am na ku doon bind ci littérature arabe ci Sénégal fàtte Alaaji Moussa bu mu ne yàlla na ko yàlla baal bàkkaar bu rëy bi mu ndax bind ci adabul arab yi ci Sénégal te bindoo Alaaji Moussa bu loolu bàkkaar bu rëy waaye boo jàngee mbindam mi rek xam ko mi ngi tàmbali la tamit di wax alhamdulilahi alladi qaala fi kitaabihi alfasix wa kalaamihi almunazali ala nabiyihi zinna sabi sarix walwaji sabix wallawni almarix fasalu ahla dicri in kuntum la taalamun mu julli ci yonent bi ah, salaamun bi idraku mursili kullama tamanna wa fazuhu bilxusna ila abdulfaqir ila mawla walqadir mohamad zeynab ibn alhaj xamaahu llahu an al ijaaj abdillahi ibnu mohamad awlaahum almawla عاقبة تحمد الجنوفي أصلا والكونخي محلا إلى علماء زاوية شيخ بفاس جيرته الأولى أولي العلم والتدراس حواهم الله عن كل باس mu def sajcu bu rafet a rafet googa ñëw ci li tax muy wax fa mujibuhu ayuha saadatu alkiram والفقهاء والأعلام الراكبون متناء القرآن وصحاح أحاديث خير بن عبدان وخالدون جد العلوم التفسير باستخراج كل لؤلؤ يخرس أهل التعبير يخرس أهل التعبير وسلكتم مسالك فقه مالك فكان لباب مسائله لقرائحكم ممالك أما طول باعكم عن الصحيح البخاري ولا عن تصفح أوراق إرشاد الساري وجمعتم جامع مسلم وسنن أبي داود عن كل راو مسلم مدوة تعمل نجوي إلى فاس بلغني سلاما مطيبا إلى السادة الأخيار أولي الفضائل إلى العلماء الغر جيرة شيخنا حماة حمى المختوم أعد الأباطل ذوي الفتح والطاعة والحلم والصفاء ذوي الجود والإطعام بين المحافل رجال بعين الشيخ حلوا محله بإصلاح ذات البين عن كل غافل بنوا دينهم عن دعائم سنة وصاروا لأهل البدع أسد القواتل ولم ينهينهم عن مقالة شيخنا تكاثر أموال ودور ودور وجافل tagg leen tagg gu rafet di wax ne ñoom ñooy góor ñi nga xam ne ñooy xewenal li fi Cheikh bàyyi ba tax nit ñi mën a xewenal seen diine dàq lépp loo xam ne bidaa la lépp lu nit di ut ci waxi Cheikh Tidiane mu ne boo ko làmbee ci ñoom rek daal di ko fay daal di ko fay fekk muy continuer ba di leen melal ñoom ñëpp kenn ka di Abdou Karim Benis dama ko waxee kenn ki di ci tay Sufyaan yi mu tëj nag ne ilaykum banaatul fikri tuqri ba saabisan biraaran bixaaran libtiraayil muwaasili usaayilukum xukman taxaalafa jullatun bi taxqiqihi antum aimatu naahili wa kaana ixtilaafu nnaasi lillahi rahmatun lillahi rahmatan wa nubqi maqaalan min nusuusin fawaasili fa haada alladi qad kaana fi lxalbi mujaan wa antum shifaau jaahilin mutadaa'ili wa in rushtum haada aljanaaxa fa rabbukum yujaazikum xayran usaata alqabaa'ili wala taxqiruuni an jawaabin فعجلوا جوابا جميلا في ليال قلائل على المصطفى الهادي وآله وصحبه صلاة وتسليم يليق بكامل muy way yu rafet rafet mu ñëwee leen ay laaj dana ngeen gaaw nag ci tontu yi ndax damaa yàkkamti naka noonu boo gisee tawasulaat yi mu def gis nañ ci benn bu ñuy wax ne lu demaan nga xam ne mi ngi garanti képp ku koy jàng fajul aajo muy xasida bu gudd mu tawasul ci yenent bi ak ci fukk yi nga xam ne yenent bi garanti na leen aljanna tawasul ci Cheikh Ahmad Tidiane ak ci fukk yi nga xam ne Cheikh Tidiane garanti na leen fatul akbar tawasul ci Cheikh Omar Fouti doog a ñëw ci baayam bi te di Alaaji Abdoulaye nag sama baay bi nga xam ne ah jarul sax ba ma koy tudd boo ko melalee rek ñëpp xam mooy kan loolu daf ñuy yóbbu ci loolu rek tënk la ci bu bàyyi ne mooy Zeynul Majalis yi da ngay xam ne dëgg-dëgg mooy taari jotaay yi xam-xam yi ndax lim dajale yëpp ci xam-xam ah, yàlla may ko dimbale ko Cheikh Ibrahima wax naa ko boo jàngee kashful albaas rek taqrit ba mu ca def mu ne bàyyi ñu ngi lay seedeel ak jiitu di la seedeel na ci say doom yu roxo lañ bokk ci dëgg taqrit boobu daf maa yéem lool damaa fekk tubaab ci seen archive yi carton bu ñuy ci archive nationale française ñu def fa benn lettre boo xam ne ñu ko jabal jagaleel doomi El Hadj Abdoulaye Niass man fa fekk maam Khalifa Cheikh El Hadj Mouhamed Zeynab ak Cheikh Ibrahima yéen Cheikh Ibrahima nag bind na benn téere bu albaas magam jii ñuy wax Mouhamed Zeynab moom moo def tubaab yi dara du leen rëcc ndax lépp luy xaw ci biir ñu ngi koy xam pour gën ñoo mën a contrôler gis nañ ala yaa doxatal waxti fëlti turuku daawa xasidaam bu rafet boo nga xam ne man bi ci njëkk a génn ñu ngi ko fekk ci kayit yi suñu mamal xaj ma xaj ma zéna bu joxoon ko yarkat la woon yarkat la bu mag dafay yar lana bàyyi ñu rabbi bi anwaai tawat bi jamiiha bi alxaadihi alfaadihi aw bi luqmati bàyyi ci fànn yar yëpp lay yere dana tibb jox la danga toog moom ay géndeeku rek yéege la waaye dana ah, ah, wax nga dégg rek nga amee ci sa càkkute bi waaye ni bàyyi daan def ñenn ci mag ñi buñ sooboo mu bind leen ay woy ci aadaabu suluk moom tamit daf ko daan def boo jàngee li bàyyi bi ndaloon bàyyi maas ba tadabbaril adkaara yaa muaadu wa rabbuna almuhaymin almalaadu waltaqa inna wara an siwaahu xatta idaa lam yabqa illa allahu bàyyi ne ko yow maas daggal sa digganteeg lépp lépp lu yàlla danga sa setantal wirdu bi ngay wirdu xamal ne aalamul ulumi yi ñi féetee kaw ak ñi féetee suuf amu ci kuy lor wala muy jëriñ lu may yàlla kon nag luqyal mu'sari bi tarkil asari bàyyi fi jeexital gi te nga dem ci yàlla mi aji jeexital alaaj moom seen dama gis mu bind lu mel noonu bindal ko suñu maam Malick Diouf bi muy tarbiya ci moom lii bind na ko Alxaaj Mouhamed Zeynab la euh, ñu sotti ko fii muy wax ne aleykum bi dikri aleyka bi dikri mi ngi ko bind lu si habibahu Malick Diouf di dénk taalibeem bi soppeem Malla Diouf mu ne ko na nga jàpp ci zikar ak teewlu alayka bi zikri wal istixdaari muxtaniyan mustaamil al afkaari wal tadimi al uzlata wa sumtaka wa samta kama kama tafiru min xalqin bi qalbin salima wa gib an al wujudi wal mawjudi tashhadu rabbi mutlaq al wujudi na nga fàddu wal gis mbindeef yi bu boobaa rek da nga mën di seedu yàlla shuhuduka al wujud shuhuduka al wujud dambun yaadumu فتب إلى إلى مولاك فهو أكرم ولتترك الأكوان إنها عدم وأنت أيضا مثلها محض العدم bàyyil mbindeef yàlla yi te xam ne ñoom ak ñàkk lañu bàyyi fàttal sa bopp te xam ne yow tamit yaay jëmmi ñàkk wax ji boo ko comparé wax ji bàyyi ji da ngay xam ne ci benn balluwaay rek la la la ballee ñu bokk ci ñi daan défendre fayda bi bind na ci lu bëri boo demee ci urjuza boobu tas tasiyatu ixwaan boobu métti na lool ndax yàlla ku mës a jox mission bu rëy rek dana xiir ci yow joo xam ne dañ lay weddi bu amutoon kàngam yoo xam ne seen plume dañ koo tooke ñu mel ni Cheikh Al Hadj Moussa bu ñu kontaan métti lool. am na benn lettre bu bind safar 1349 du 1930 juin 1930 mi ngi ciy défendre Cheikh Ibrahim ak faydu bi di wax ne képp kuy wedd fatu ak àgg ci yàlla yow yen yéen suñu nga weddi bi Tidiane nga weddi bi indi na fa ay wax yook yu kawee ci maarif yi yoo xam ne dëgg-dëgg ku mel ni moom rek moo ko moo ko moo ko mën a indi. nit yàlla la boo xam ne yàlla daf ko joxoon këcfu mu bëgg bàyyi lool ba amu ci sago lettre bii ma ti mi ngi ci wax bàyyi ne ko yaa ngi may wax ne Ngalandou Diouf daf laa seet ndax 1934 bii bi la jaañ gaañoo dañoo def élection député fal Ngalandou bàyyi Lamine Gueye la faraloon mi ngi wax sax maam Cheikh Omar Faye ne ko Sénégal la ñu bëri ñuy ñaawal naan ah seen waa ji daanu la Ngalandou moo faw tey ngeen xam xamuñ nañu aarif lañ te aarif ci yàlla rek la aju ragal am ndax moom ci yàlla la wéeru Cheikh Laaj Mazelabu mi ngi wax bàyyi fii ne ko yaa ngi may wax ne Ngalandou la kontaan naa ci ndax moom dey li mu bëgg mënta am li mu bëgg Sénégal te jaarul ci yow waaye lettre boobu li ma ci yem ñu ci nettee ñaari gént benn bi Jibril alayhi salaam la ko yàlla woon beneen bi benn taalibeem boo xam ne mu ne moom moo ko jox ismul azam ak benn ñaan ci ñaan tariqa bi mu gën mu gën gis ndox mu bari di ball ba mu daanu ci ndox ma bi mu ko waxee alaj maseri bu alaj maseri ne ko yow maawul xayaa nga gis ci nga daanu ko yàlla joxoon gis nañ beneen lettre bu bàyyi jox suñu maam Cerno Yaxya lii di ko wax ne ko Cheikh Alhaaj Mouhamed Zeynabu gént na dem Rome damay wax ne kon bi faydu bi di ubbeeku ci Europe ak ci àddina bi sax moom yàlla wan na ko yàlla wan na ko ko te moom fekkewu ko mu ne dafa gént dem room gis fa mbooloo mu bëri am ku wax alañ ma ne ko yow de sa sëriñ ki ñuy wax Cheikh Ibrahim amut ku mel ni moom ci kaw suuf waa ji mu ne dugg ci benn néeg fekk fa benn waay mu ne bàyyi ne ko bàyyi moo ko dénk foofu ne ko na toog foofu xaar ko gént gu rëy googu boo demee ci lettre boo xam ne ñu ko amee fii bàyyi bindi ko suñu maam Cerno Yaxya da nga ko fa fekk lettre yi wàllu yàlla yi dafa am solo ndax ñu ne seen mbóot ci seen lettre yi lay nekk nekkul ne sax seen lettre yëpp la ñu mën a jàng ci biir mbooloo waaye lettre bi dafa neex lool bàyyi bind ko fan yi rek laa ko gis Cheikh Alhaj Mouhamed Zeynab di wax fa ila xadrati wallahi ruuxi wa rayxaani xabibi wa mahbubi kulli wa jumlati cheikhi alladi ka shaqiqi wa shafiqi wa rafiqi fi daarayni sayd aljalil wal ustaad albaraka saaxibi tafdili wa tafsil zinati dahri wa faxri alashirati wal asri wal qutri ما زالت البلاد تحيا بأنفاسه المقدسة والأرزاق تكثر عند نزوله تكثر عند نزوله في القرية المنحلة شيخ إبراهيم الشيخ الحاج عبد الله متعنا الله بتولي محياه آمين asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne mi ngi waat ne lettre bi mi ngi jëm ci ki nga xam ne mooy roxoom te mooy ak xetam mooy soppeem mooy léppam di léppi léppam mooy sëriñam di genn wàllam di tojiti roxoom di àndandooram ci àddina ak ci àllaaxira ustaas bu mag bi ki borom fatale gi ki nga xam ne mooy taaru jamono ki nga xam ne mooy puukare njaboot gi ki nga xam ne mooy puukare jamono ak dëkk bi ñu dëkkee yàlla bu dëkk bi dañ di tedd ci ak nokkeem yu kawe yu tedd wërsëg ji sotteeku ci bépp gox boo xam ne gox bu gent la boo xam ne moom Cheikh Ibrahima teg na fa tànkam ci biir laajte bi mi ngi lay wax beneen aspect ci Cheikh El Hadj Moussa Zeynabou mooy aspect ni bëggee kër El Hadj Abdoulaye Niass mi ngi laaj lettre bi bi moo deuxième lettre bi ma gis muy laaj bàyyi suñu mag Cheikh Alhaji Aboubacar naka la mel ndax mi ngi tane ngeen la wax ma ndax mi ngi tane ndax moom mën cee bëggal fas yi waaye ni mu bëggee njabootu Alhaji Abdoulaye noonu la bëggee toppam bàyyi mi yëpp lettre bi mi ngi ko jeexal naan bàyyi neen Alhaji Omar kan maa ngi koy gërëm ndax ni mu la ni mu ni ci maa ngi koy gërëm te maa koy ñaanal bu ko yëgee bu ko yëgut ngir coono yi muy daj ci yow taxawaay bu rëy bi nga xam ne mi ngi koy def ci yow te loolu lettre bi 1939 ci la ko Cheikh Ibrahima bind beneen lettre ngi nii fexe la bi laxadati wallahi cheikhi wa xabibi wa muctamadi fi jamii axwaali mujaddidi man dasara min sunnati imami almursalin wa mushayiri manaari tariqi qutbi alaarifina qudbati almuqtadina wa ustaadi alustaadina la zaala kahfan tula zamani aaliyan wa lan yazaalu kaabatan tatuufu biha alqaasiduna cheikh alxaaj ibrahim ibn alxaaj abdoulaye Niass mooy comme benn rek mu ne bàyyi yaay ki dekkal sunna gannaaw ba mu jógee ci raaf yaay sang ñi xam yàlla yaay xommat ñii xommate yow cheikh ibrahim yàlla boo dañ nekk di tata goo xam ne képp ku bëgg a mucc ci lay làqu lettre bi it ah, lettre bu mel noonu dëgg la lépp luy dëgëral ak mbokk ak luy wane cofeelam ci bàyyi moo ci fees beneen lettre bi li xadrati cheikh al imam wa wasitati al aqdi bayna rijali al kiram xaatimati al muhaqiqina wa imam alsalikina wal muslikina wal muslikina ah, ila xadrati rabbil alamin al kahf al mani وبالمقام الرفيع سيدي وشيخي ومولاي الحاج ابراهيم بن الحاج عبد الله خيب الله مكائد اعدائه وحساده واضرم نيران الهلاك في ظواهرهم وبواطنهم ومواطنهم وجعل مكائدهم في نحورهم وقطع التصرف في الملك منهم وفي عقبهم الى يوم الدين. nante bi bu tàng mi ngi naan bàyyi yàlla yàlla xarak say noonu yàlla yàlla dog leen te dog nguur ci ñoom boo gisee ñaan gi ni mu dëgëree rek daf lay jàngal jamono bu rëy bi nga xam ne moom lañ doon dund dafa jot deux minutes ah wax dëgg yàlla lii liñ ci dajale xajut ci benn jotaay ah aj gi yéeme lool bi bàyyi di aji Màkka 1937 bind na ko leeta ne ko yàlla yàlla fay suñu bàyyi lépp lu am rek ndekete ci moom la man de jumaa yenentu bi bu ma ciy dugg dañ naan bur baa ngi naan borom xam-xam baa kuñ fi yéem ci xam-xam ba du la joxoñ ci baaraam duñ jàmmarloo ak yow rek nga ndërmoon bàyyi dénk ko ne denk dénk naa la pour nga jiite iid bi baax na li li li li ñu tëjee ah, ne xaaj Mouhamed Zeynabou képp ku mës a génn rek maam alaaji digal na ko pour mu marsiya ci naa marsiya Ahmad Bukaar wax naa marsiya Sam Samba Thiané ak Sidi Xalasan waaye marsiya suñu maam Mouhamed Mati Niass bàyyi suñu Omar Fati Diallo nga xam ne suma nijaay Cheikh Seydi Ali Cheikh Seydi Mbaye ah, moo moo ko moo ko jox aji <laughs> aji aji lu yéeme la waaye amutoon ci rek di magi baay di xalifaam di kàngamam di ci mag ci magi kàngam yi nga xam ne ñoo ko dar di jàmbaar yi nga xam ne moo ko dëgëral mel ni xaaru na ci moom waaye dafa nekkoon di xaritam xam nga xaritoo moom leneen la mën ngaa bokk nit te du ngeen nekk sax ay xarit suñu jaay Cheikh El moom Mahmoud ni yaay as Mahmoud dafa ñëw benn bés seet Seyda Roqaya ma dégg ko mu koy waxtaanal ne ko bes dama fekk alaj ma Zeynab mi ngi waxtaan ak baay ñu ngi fekkoo di waxtaan comme ay soppe ma déglu la ndeke ñu ngi waxtaan ci Omar Gada Gada ak euh, Omar Gada ak Ibou Diouf ku dàqa woy mu ne baay laaj maam laaj ma Zeynab ko ah Omar moo daa woy di ba ne ko waaye alaaji Omar moom dafa jàng liñ jàng yëpp jàng na arut jàng bayaan yëpp mën naa wa waaye Ibou Diouf mi dara ba pare di woy woy yu rafet yi yaakaaroon ne moo gën a woy mu ne waaw wax dëgg kooku kay kooku moom waaw kii Omar moom moom bu woyee yéemewut ndax ah, war naa mën a woy Omar na ba alaaj moo zénébu su ma yaatu ñu daf koy tari muy wax ne alaaj moo bu yaay benn bu mën fukk ak juróom ci doom yu a ajuróom yaay doom bu yaay doom bu mën fukk ak juróom yu jàng ajuróom maanaam fukki fukki doomi soxna juróom bu ñu dajale woon yaa leen mën mu dem ci biir way wa naan daanuñ ko laaj muy ciipu tabe ba mel ni niiru ceebo suba ak ngoon muy ceebo muy ceeboo jaaraama kii moom ma taxam di joxe xam-xam eh, di joxe ceeb di joxe xam-xam di joxe ceeb ah, gis nañ lu bëree bëri ci moom wax dëgg yàlla xajut ci jotaay bi lañ koy barkeeloo rek te man déglu al oustaz ah, Aboubacar Ba Tidiane yi moo dàqal suuf wax yàlla di déglu sama bopp jumaa yi bàyyi ji lu nekk la ci nag maa ngi amee fi ñaari lettre mu naan bàyyi mënumaa ñëw alxamis ndax maa ngi ci mbiri jumaa ji maag soppe ak taalibe yi pour dajale alal joo xam ne moom la ñu tabaxee jumaa ji nekk boobu 1937 la euh, moo tax yéemewut bi jumaa ji pare bàyyi dajale fukki capitaine ak ñaar mu mel ni isna achara naqiban ñu àndoon ak yéen yàlla Moussa muy nuqabaaw yi nga xam ne ñooy saytu mbiri jumaa ji raisul raisul nuqabaa yi ki jiitee commission bi mooy Cheikh Alhaaj Mouhamed Zeynab ba tey boo demee ci jawaayir rasaayil da nga fa da nga fa fekk euh, lettre boobu euh, alhamdulilah marsiya bi di ko bàyyi defal bi muy génn àdduna rek ci saa si la marsiya bi mbindam loxoom la euh, man bind suñu maam Seydi Cheikh ma Mouhamad Marama laa njëkkoon gis doomam baax ji Cheikh Hassan si ko fan yi rek laa gis marsiya di ko bàyyi defal muy loxo bàyyi di wax ne yow yàlla yàlla nga taw taw yi yërmande te nga leeral xabru xaaj moo zénébu laabal jëmmam ja te yaatal xabrom ba dañ bëggal dañ bëggal ci ne sang bii nii nga xam ne bànqaas la ci garab gi mu doonoon fekki na ko makka mooy makka dana ko jooy ah, masharul xaram dana ko jooy safa ak marwa danañ ko jooy ndax barab yooyu yëpp teew na fa te yàlla may ko may gu ba muy aji boobu lu ndaw la woon boobu magewut ci at te at jafe woon na lool su ma nijaay amat xëy na tel nañu fii ci lijaabal xaaj Mouhamed Zeynabou ci année quatre-vingt yi moo ñëwoon fi ànd wax ne dafa am lijaabal lépp lu mu ñaan mu nangu lépp lu mu bind mu nangu mu ne saafara si mbind bi muy aji màkk sax ñoom ndaa lañ ko tabaxal ndaa ba ci année quatre-vingt-dix saafara si mi ngi dund mille neuf cent vingt-quatre yaakaar naa ba ci jamono bu deux mille cinq mu ne saafara suuf mi ngi dund ndax xam guñ xam ne moom lépp lu mu bind yàlla def ci barke lépp lu ñu ñaan yàlla nangu ko kon ci barke ku tedd kooku yàlla ñu yàlla nangul suñu ziyaara yàlla xëy ñu ci xentu seen i jeexital yàlla yàggal fi suñu nijaay Cheikh Mahamadul Bachir ak rakkam yu tedd yi nga xam ne dëgg-dëgg ah bàyyi waxoon na ne Euh, boobu la ma waxoon ci suñu jaaraaj bu Seynu ne tifun bi waalidu wa awsaani zaka amrun parama at naa nii bàyyi moom ko dénkoon te loolu dama yaakaar sonn ci dénkaane ñoom bàyyi bëgg gi mu bëggoon xaj Mouhamed Zeynabou dafa feeñ ci ñoom gis naa lettre boo xam ne suñu bàyyi Bachir mii moo ko bind bàyyi te bàyyi li ñu ko bind bëri na ci àdduna bi waaye lettre bu mu archivé dencee ko boppam bañ mën ko faa fekk loolu itteel na ko mu ko ci wax ne damaa déggoon damaa déggoon da ngaa feebar suma àddina yëpp yàlla nga wéer yàlla nga fi yàgg ñun de suñu bàyyi li muy liñ dégg ci mbaaxam yëpp dañ koo dégg waaye ñun yow lañ xam ci waaju su ma nijaay si daara bi yokkam na ci ne mosuñoo tàggale bàyyi mosuñoo tàggale ci lu ñuy sol ak lu ñuy lekk ak fu ñuy dëkk ak doom yi ñu jural boppam man mii de moom a jël dénk ma sama Amadou mu def ci man alquran mu tari ma tari ci kanamam mu jël silhaamam bëcc ko ci kanamam mu xaal bay lox ndax mbub mi ko bàyyi jox ndax xam na maanaam yi nekk ci mantu bàyyi waxoon na bàyyi war am maalik ne ko boo asida bi kontaan naa ci yónnee naa la manta maana boo fi teewoon nag ma jox la mantu xissi manta bu bàyyi décoré ko mu ne mu ko dàqal ursi ngaram bu yàlla di jóg loolu ba ci suñu yaay Cheikh Ahmad Tidiane yi ñu ne xaj Mouhamed Zeynabou télégramme bi bàyyi mujj bi bàyyi bind Liban 1972 ba ñuy dem ci Cheikh Zayed maa ngi ko gis ma nga ñu ngi bind ne from his eminence Cheikh al-Islam Hadj Ibrahima Niass ñu de ñu his secretary Ibrahima Mahmoud Diop monsieur Cheikh Tidiane Ibrahima Niass diplomate jublu ci suñu yaay Cheikh Tidiane ñu ne xaj Mouhamed Zeynabou bokkoon ci staff technique bi nga xam ne ñoo doon ànd ak bàyyi ci lépp kon yàlla na yàlla fayal ñu leen yàlla taas ñu seen barke ama dalika àlallahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullah